am metti am naqar ndax naqar bi ak metti mooy dafa mel ni ñun ay doomu aadama ndax dañu gis foo xam ne ñu bari ñu defa def ay doodaan ñu ne def suñuy déclaration lu bëree bare bëri bind naa préfet bind naa ku ne bind fu ne bind naa fa préfet ci boppam ñëw na taxaw fii xool situation bi sous préfet ñëw na fi taxaw fii xool na situation bi xam ne lii jaaduwul mais booba léegi amul benn satisfaction bu ñun defal te ñun ay doomu aadama lañu dañuy ñaan laayi war a soli président de la république su ko déggee boog na wax njabootam mu dimbali ni laayi war a soli may ñu ay doodaan fii plus de dix morts am na fii accident yi bëri am na fi am na ñoo xam ne ci lañ doxee ñàkk seen i tànk am na ñoo xam ne ci lañ ñu am ci naqar trop ndax nit boo amee sa naqar di ko wax guddee ak bëccëg suba ngoon te ñëpp di ay citoyen di ay sénégalais wax dëgg yàlla war nañoo mën a gestu kër Modou Ndiaye waaw di ko yëgal nag ki nga xamante ne mooy sunu ministre Abdou Aziz mbay nga xamante ne mooy ministère d'État nekk ci près de Macky Sall kooku normalement war na mën a jàppale ci dëkk bi la dëkk ñoo ngi koy ñaan ndimbal mu jàppale nu bu baax a baax a baax di di ñaan autorités yi ku dégg nga jéem koo jot li sa morom ndax xale yi dañoo bëggoon a kar sax def leneen du dul noonu may leen bu doon ko def li ñu bëgg mooy nda ànd ak yar ak teggin ñu jàllale suñu message ba pare message bi nag dañoo bëgg mu jàll ñëpp xam ni Kër Modou Ndiaye dëkk la boo xamante ni dafa yaatu li mu wër li ko wër dafa bari ndax sapeur pompier baa ngi fi toolu xaal baa ngi fi station baa ngi fi ISEP baa ngi fi. ak yeneen tool yi procès yoo xam dañu fee bari. ñuy jàngi gis ngeen ni leen oto bi xaaje ñuy jéggi oto bi xaaj leen oto amuñu amuñu bu ñuy daw fii daal day mel ñu ne ci kaw avion ci kaw daal la daw mel ne du ay bàyyi ma la ñuy romb ak ay xale yu ndaw xale yoo xam ne mënuluñ seen bopp dara léegi nag bu fekkee mënuñoo am doo daan ñu taxaw ci tali bi yuuxu koom ñëpp ndax ñuy sànni xeer ñi ëpp ñu ñu fidde mais ñu dañoo am yar suñu délégué bu ne def leen dañuy def bu ne bàyyi leen dañuy bàyyi moom lañ jox cër mais bu doon rek xeex rek ak wanante am jom rek kenn ëpp ñu jom ñun ay jigéen lañu bëgg ñoo toog ci kër ga di xaar góor yi luñ indi. te buñ toogee sax duñ toog ndax suñu xale yi di jéggi ci tali bi ñu leen di rey chaque jour sa doom di dee ngay ni ci dëj chaque jour te oto la ñun tamit dañoo sonn. Macky liggéey na gaamee nañu fàttaliku te yàlla ndax ñun doodaan la ñuy ñaan ñaanuñu xaalis ñaanuñu oto ñaanuñu jees deen ñun doodaan la ñu bëgg ngir suñu doom yi te yàlla rek tax li fiy dee mënuñoo toog ñetti weer soog amu fi jigéen ñaa ngi nii am jom di jaay ay clémentine nag lu ne mais guddi fii kenn du gis boo ñibbi da ngay dem ba nit poñe la ne la indi li nga yor boo ko joxul la rey te bu la reyee sa njabootay perte lamp yi nañ ñu ci dimbali li lay war a suul ñun xeexuñu xuloowuñ dañoo ñaante yàlla tax Macky Sall ñun dëkkuñu Amérique dëkkuñu Europe dëkkuñu France dëkkuñu Italie Sénégal la ñu dëkk dimbali ñu ñun say njaboot suñu doom yi lañ am jigéen bu yeewu dakk sa ndigg sa doom a tax nga xëy ñun xëye luñ ma sàmm xëy luñ ma dem luñ suturoo ak suñuy njaboot lañ am kon nag dimbaliñ ci doo daan bi ñu ñaan ak lamp yi defal ñu place yu baax jigéen bu am loo mottalee sa dépense doo xuloog sa jëkkër dimbali leen ñu te yàlla tax looloo tax ñuy jooy maki loolu rek la ñuy jooy jooy ñu ne leen avant tout dañuy sant suñ chef de quartier parce que fi mu war a jaar yëpp yaakaar naa jaar na fi parce que ñun suñu amee problème population ñu amee problème ñun la ñuy saisir ñun ñi nga xam ñooy ñooy ñooy nekk ci responsable yi ñun nag moom la ñuy ci boppam moom xam nañ ni ñi ko féete kaw ñëpp fa mu war a jaar yëpp jaar na fa mais li am solo moo di ñun dañu war a xam ni ci dëkk bi lañ bokk comme ñëpp citoyen yi lañ comme ñëpp loolu dañ ko war a xam te àddina dafa doll foo xamante nii li xew fépp xam nañ ko li xew États-Unis ak li xew Europe ak li xew pale sax dañ koy xam kon ñun toll nañ fa nga xamante ni dañu war a am li ñëpp di am ñu am ko suñu chef de quartier kaas na ñun ñi nga xam ñoo topp ci ginnaaw population bi yëpp ñu ngi jooy pour am li nga xamante ni mooy e, dóor daan fii ci koñ bi te dañ ko soxla ndax wax nañ ko bari na ay cause yoo xam am na fi ay accident yu bari am na fi yoo xamante ni ay mortel la ay blesse la loolu nag dafa dakk dafa war a dakk parce que lii ñëpp di soxla lañ soxla comme ñëpp fii dafa am loo xam soxla nañ ko dañuy wax dóor daan mais dafa am loo xam te insécurité boo xam am na fii ci koñ bi mooy lu mel ni courant dañ ko soxla am na fi ay lampadaires yoo xam dugg na fii ci koñ dugg na fii Sénégal Thiès gépp am na fi mais amul fii fii Thiès Nord nga xam ñun Thiès Nord lañ bokk soo xoolee euh, monsieur le maire ba ci biir koñam ba nga xam fa la dëkk àll ba sax am na mais ñun amuñu benn poto lampe boo xam am na fii ay doo daan li ko kip kippe ngi nii kër Modou Ndiaye kër ma kër kër Mbaye Jaxate ñoom ñëpp amuñu ndox ga liñ soxla dox amuñu ko courant amuñu ko boo xam doy na surtout lampa yi nga xam da ngay jóge fii jóge ci route nationale bi ba egg ci biir dëkk bi nga xam ay kër la ay sancaan ñoo fa nekk nga xam ne soxla nañ li nga xamante ni mooy lampadaires yi amuñu ko loolu bokkuñ ci li am soxla nañ ko. dafa am loo xam ne il temps nag dafa am loo xamante ni li nit ñi di def di yàq ko toj ñun bëgguñu faa egg dañu yore ak njaboot nag xale yaa ngi fi. mag ñaa ngi fi mais bëgguñu toog di yàq di jaxase waaye am na xom su fa eggee nag comme ku yàq ñu ñëw jàppale la ñun bëgguñu egg foofu suñ sañoon wax dëgg yàlla dañuy ñëw ñaan jaar fañ war a jaar ci autorité yi ñu defal ñu li ñu bëgg surtout nag dóor daan soxla nañ ko fii suñ jigéen yaa ngi fii dañuy jaay élèves yaa ngi nii yéli nga leen gis ñeneen ñeneen ñi ngi fi de sànc yaa ngi ubbeeku nit ñi dóor xoolal nii ISEP baa ngi nii ISEP baa ngi nii camp sapeur baa ngi nii école sapeur su pompier la boo xam sous région bi yëpp daal yaakaar naa fii la am kon loolu ñun soxla nañ ko trop trop trop fii nag ñun loolu lañ soxla. man mii taxaw di wax ak yéen ñàkk naa fi sama doom bu góor te keroog bi mu génnee àdduna ak léegi kere laa mujj a gis sax ki ko génnee àdduna ba muy ba muy wax ci man dara daw naa ci ba jeex mujjul fenn ma jël samay loxo nag tàllal yàlla takk sama ndigg fas yéenee liggéey. ndax yàllaa ma ko joxoon xëy na te moo ko jël bi loolu jàllee nun jigéen ñi noo ngi diggante gaara sa kër Moodu ab dérélé la amul làmp amul dara dangay jaay ba war a ñibbi dox ba xaajale ñu ne la kar ci diggante bi tàllal la loxo bu la boo gestoo gisoo góor dañ nga dañuy nangu la nga yor baa ñu nangu say téléphone nga dem sunu élèves yi jàngee cees di guddee waaj élève bu ci ñëw bu ci gontu ji léegi doo yottoo yóbbu sa téléphone ndax booy ñibbi si def fii lañ lay kar diggante kër moo doo euh, garage lañ lay kar nangu téléphone bi métti rek nuy jànkonteeg lu métti rek nag suba gu jot bala weer wu nu dugg daal bala nu ko gën gis fi jéyee joo xamee ni nii kenn mun la koo wax waaw mm, li ma la wax rek benn ci man mii taxaw sama doom bu góor fii la ko oto jël ba andi ko ci tali bi ba andi ko ci euh, niim gi foofu la jëlee bakkanam da doon jéggi sama doom bu góor boobu bi muy génn àdduna booba am na war naa am juróom-ñetti at. bu waaw añ la ma doon andil ci garage bi man mii ndeyam maa fi nekkoon pare añ mu di ma andil añ ñëw taaj añ bi doon jéggi ne day gaanuwaay oto ba jël ko.